danaa la wax lu yéeme. waaw muy. Idrissa Seck ak Macky Sall. Mm. réeroo wuñu. Cheikh Yem nga ne lan. réeroo wuñu cest à seen nii nii. depuis lendemain élection présidentielle ba léegi. waa réeroo wuñu. kon ñu ngi waxantaan waxtaan nice. est-ce que sax teraanga doxul seen diggante damay laaj rek nag. est que sax teraanga doxul seen diggante. de quelle nature. ah xaw ma ay genre ay ay som ay. damay laaj euh, dong rek comme ni waa di wax. mais xam nga ñoom sa laaj moom. sa valeur de est-ce que sax teraanga doxul seen diggante ñoom ñaar li ma la bëgg a xamal mooy. Hmm. ñoom réeroo wuñu ñu ngi commencé wax wax ji jaar ci kilifa gu mag. après affaire bi di law wala. non du laa mën a yem affaire bi di law. Hmm. ñoom ñaar réeroo wuñu mais mais mais ñu ngi gisante wala téléphone lañu lañu. ah déedéet réerawuñu daal ah c'est mais mais kon kon yow foofu nga jàpp ne Idrissa Seck kon moo tax mu noppi nii kon noppi gu mu noppi nii euh, def presque euh, euh, enterré wala volontairement. lan ay satu yow xam nga ni journaliste nga ci politique xam nga ni noppi boo gis wax la. bien évidemment. Idrissa Seck tiirewul sax tiirewul sax leçon wu. Mm. élection bi. waaw à li mu wax bi mu njëkkee génn daal ne voilà. comme gars yi dañoo sàcc élection yi waaye nañ gis xaw ma ban formule la. kii ca la jeex waaw sànnitul xeer noppi na pataaral ba ki de moom génnee sax mu ngi naaj sal tuuti. noppi boo gis rek wax la ci politique waaw.